mbokk internet ci wasaare lamb ñu ngi baax a baax di leen ziar di am mbégte ak kontaan comme ni ñu koy defee chaque jour ñu ngi fii si Grand Yoff xam ngeen ni Zarko Ada Fass combat boo xam ne amateur yëpp moom la ñuy xaar combat boo xam ne fu mu toll nii képp koo xam ne mu ngi suivre lamb moo xam ma Sénégal ñëpp moom la ñuy xaar fa parce que combat espoir la même bu fekkee ne kii di Ada Fass am na expérience lool waaye kii di Zarko tamit am na lool lool lool lool. mu nar am le janvier bi incha allah moo tax ñëw fi si Grand Yoff def reportage bu am solo si diggante kan Zarko. fast club yu fi nekk supporters yi nekk nan lañuy waaje bii combat xali sama kawma topp ma jaay dem xool gars waaw Fall maa lay lañ koy wax waaw combat di ñaanal Zarko ndam rek waaw ndam lañ koy ñaanal moom bu bëree bi si tey ak dal ak yar ak teggin waaw xam ne instant làmb ji dañ koo soxla waa grand yëpp ko soxla waaw ñu ngi koy ñaanal ndam daal waaw mu bëre ko ci tekk ak dal ak yar ak teggin waaw di wax Ada na préparé te xam ne ci kawam lañ si. wala yéen ngeen ne Ada Fass seen kaw la jëm. Ada Fass kay fi mu toll nii moo war a programmé waaw xam ni mooy loolu duñ ko may dara waaw ñoo ko gën a pare ñoo ko gën a soxla combat bi. waaw waaw luñ ciy ragal dawuñu yoole boobu noonu Sarko combat bi lu mu laaj da koy def waaw lu mu laaj rek da def yaa ma gën a xam ama Sarko moom du ragal waaw bu mu ko jàpp du taxaw combat bi ku yéex doo gis bi non Ada Fass man du ragal mais sargo moo ko man jël bi ku yéex doo ko gis incha allahu rabbi yàlla si yàlla yóbbu ak jaamu Sarko yàlla may ko ndam waaw loolu lañ koy ñaanal daal. ay mag noo lamb mag amul amul amul loolu amul mag. non même pas sax mais sargo ci Sarko de Sarko bu ndaw la waaw ne ci digg dooleem waaw mooy loolu Arafat day xalaat rek di wax day xalaat rek di wax yaa gën a non combat bi moom soxla nañ ci xeex soxla nañ ci xeex. waaw pour wane suñu bopp parce que Ada mooy loolu foog ñu xeex ak moom waaw wan ko suñu bopp moom ba mu respecté ñu daal waaw. non respect bi des na foog ñu defal ko bagage respect bi doo ko mën a gën a daw waaw foog ñu defal ko bogaas après ci la respect bi gën a waaw gën a daw daal yaa ko gën a xam waaw kuy dal noo bëgg mu jàppal ñu ko waaw bàccal ñu ko bàcc yu neex. waaw ñun la la soxla instant yi nii waaw jaaraama. jaajëf jàmbaar naxum. siyaar naa la de. tur bi naka xong ngaa ñi. <laughs> saa yu moom ah pare nañ fépp. ah, ah ceebu xong ngaa ñee laa. ceebu xong ay ñee non saa baax na. Ah, dimas rek la ñuy xaar combat rek. saa yu xalaat ñaax la de ñëw rek teg jeexal wala ñu teg tegaat. Arafaas du xool neexu mu xip ay bëtam xool ñun dañoo pare pour lépp. pare nañ pour xeex pare nañ pour bëre billaay walaay wa taalaay Grand Yoff rek deretu Grand Yoff mooy daw fii de zone Z bi rek waa zone 3 dañuy xaar. zone Z ni mu Zarko combat bi si xeex lay mujjee wala si bëre. non mun na mun na am xeex mun na am bëre mais ñoom ñaar moom dina metti trop te buy metti ci Ada lay metti waaw mais pas pas mu metti ci Zarko. mënul métti Zarko Zarko moo ko ëpp doole moo ko man moo ko dàq bëre. mais Zarko risque parce que fu mu toll nii yàlla tere ko daane bu motul mu pare si làmb. non non Ada Fass bu ko daan mënu koo daan amul xam-xam bu mën a daan Zarko si làmb ñoo ko jiitu si làmb ñoo ko dàq bëre. mais mag la. non làmb nekkul kaadaru mag nekkul kaadaru booy bëre daan la rek indi fula rek indi jom xam ne daa am ñu nekk sa ginnaaw daa am loo bàyyi ginnaaw daa am ñu la yaakaar. boo defee loolu sa bopp rek benn erreur du am sa te ñun ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam mu seedu guyu arafas ne mu xool xippi ay bëtam xippi xool bu xoolee rek dina gis Zarko nag bu mag la de du nag bu ndaw du yàqu ngooñ du caxte caxtee ngooñ day ñëw rek lekk mu jeex noonu la demee nag. arafas xippil xool. yaa ngi na law. taxaw naas kay. Modou la. mais boo jinne lañ may woowee. jinne nga waaw jinne laa si may def de. bo ah, ki moo ko tuddee waaw. combat Zarko Ada ah, xanaa dem rek jàpp daan ñu moom Zarko lañ ànd ay doomu Grand Yoff lañ. waaw. saa moom lu mu indi rek fekk ko fi ndax ñun ay doomu Grand Yoff lañ ragaluñ dara. waaw mooy loolu. non mënut a yomb moom. parce que ay xale lañ te dañoo tolloo doole wax dëgg yàlla mais ñun moom xam nañ ñun ñoo mën ñu jàpp rek daan. ay ragal ngeen ñëwuloon. nee na ay ragal ngeen non loolu ay ay waxu ay waxu tàppel la xam nga ni moom moom mooy ragal moom mooy ragal mais xam nga ne yow ah mooy loolu yow ku xool Zarko xam ne dëkkul sax fu ragal dëkk fii ragal dëkku fii loolu la. lépp lañ indi lépp lu mu ñu indi fekk ko fi kay jeexal na wax sa waay lu mu indi fekk ko fi. waaw sa waay ñun xeexal nañ ko gën a ñàng Ada Fass ku ne. mooy loolu kon xam nga ne Ada Fass jaaxaluñ mooy loolu alwaa dañuy jaafu rek daan sa waay jarul sax ñu ko kan mooy mag xamee nga mag a xale yow xool nga xool nga ñu ah, waaw loolu du ci dara mageewuñ wuñ ko dara wuñ ko dara ñu jàpp di ko daan billaahi loolu leer na ma naa ñu man Safiatou mu ngi lay nuyu Safiatou fay naa ko sama jawat dama ko bëgg de laa laa bu ci wax ndànk sax <laughs> ah. fay naa ko bu baax a baax noo kii jëtam <laughs> waaw sant yàlla tur la gisee combat Ada Fass daan ko. waaw loolu làmb la mais li ma a wax daal ñaari mbëri ko si jum daanu làmb ju neex la làmb ju nar neex la wala dëgg yàlla waaw mais daal maa ngi lancé benn affaire Petit mu ngi xaar ñaar ñooñu ku si daan rek waaw mu ngi xaar rek ah incha waaw Petit Niang ma dëkk buun. dina bëgg nga Petit Niang yow. Petit Niang en caisse la Petit Niang daan fa ay mbër Petit Niang di ndaanaan daan fa ay ndaanaan. ah ñaañu ñaañu ñaañu ku si am baax na. ati ku si daan rek. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kawe nakaw. ziar naa leen. Arafa Zarko noo gisee combat bi. laa de. ah Arafa Zarko dem jëli lu ñu moom rek dimanche incha allah. Zarko. ah, ah Zarko. dégg nga Arafa Arafa moo ñemewul xeex Arafa du taxaw Zarko di xeex. Ada Fass du taxaw ak Zarko di xeex. barke sëñ loolu ma leer la xam naa mbër xam naa Zarko bu baax xam naa Ada bu baax. Ada fii la yaroo Garaayef Ada Fass moo doon bu Zarko doon bëre mbabat Ada moo doon téye ay dàll Zarko di ànd ak booy di daw di dawee stade ba Garaayef Ada Korea day xaar. Zarko mag Zarko bu nu mu nekkee mag. Zarko nan la nekkee mag Zarko bi juddee bu juddoo fii judde deux bii Zarko yar ñu xale bu ndaw Zarko ak sama grand frère la kon xam nga ni Zarko judduwul barke yonent bi Arfa day xaar grand day xaar bu jamono ne toos dara gën Zarko bu muy doon bëre Ada Fass lu bëre laa la wax Ada moom jamono ay Zarko doon bëre laa la Ada Fass fi la doon ñëw supporter Zarko Ada si TikTok la ne du bëri wax. seen dëgg mais jour combat mu dëggal boppam bu mu daw bu mu reculer. waaw dëgg la. du daw nee wax la rek. ay wax la rek mais Ada Fass bu dëggalee boppam nag barki Serigne Bamba dama koy daan ko dóor ko dóor ko daan ko. Zarko xale bu ndaw la du paade. bu taxawee moom bu taxawee dëggal boppam laa la ko dawul lamb bi day gaaw. neen du loolu wax la rek Ada Fass bu dëggoo man maa gisal ko kese albidi albidi génnee foo rek day daw loolu moom maa la ko wax sama diggante yàlla day daw loolu dafa leer nañ laa la war nii waaw. Zarko du musa reculer kooku dëggoo man kooku du musa reculer mukk non non non ñun damay gën a yomb nag gën ragal du fi dëkk yow. Grand Yoff laa la ragal fi lu fi waaw Daouda Sika na ñëw yàgg naa waaw toos. Sarko Sarko yàlla da koy may ndam moo man Ada Fass wax dëgg yàlla Ada Fass Ada Sarko di bëre. waaw mais oui ma gars yi oui ma nañu waxante dëgg waaw mais xam nga ma pële ñaame ah nañu wax oui ma affaire bor ba xoolal xoolal filmé xoolal moo a bàyyi gars gars yi free ñun ay naan bu xoolal bu ñu jeex. ñun bu ñu demee góor day jeex de barke sëñ Bamba parce que ñooy jël matumaay bu ne dañ koy jël ñun 460 kilomètres 700 460 kilomètres bàyyi sa waay tamit bàyyi loolu daa métti bàyyi njor bàyyi doom jabar bàyyi yaay bàyyi papa ngay dawal tamit aussi xam nga neexul. Eh, waxuñu la combat Zarko ñun eh, sa waay. dem jël li moom rek ñu bu soobee yàlla ñun ñoo soxla Zarko moo soxla. bu dee pour lépp pare nañ pour lépp ñun. dañoo pare pour tout te su dimanche ngay xam liñ lay wax nii su suur ba dañuy dem jël li ñu moom ñibbi si gannaayam incha allahu rabi ñooy ñaan yàlla fekkee dimanche dimanche feete waa sunu ndam gannaayam. déggoo li ñun dañoo pare si lépp ñun instant position bépp lañ taxawe barki alxuraan. pare nañ si lépp. barki alxuraan Ada day daan Zarko Ada yaram wi sax day bëre gaan kuy siifur làmb laa lay xam li ma lay wax Zarko du mbër dëkk fii di ànd ak moom waaye Zarko Ada Fass barki alxuraan Fass la ñuy dem tubante ji Ada moom daan ko Fass la ñuy dem tubante booy ba ma wax waaye man xool parce que daa turfe si làmb Arafat làmb yow xam nga li bu baax barke alxuraan yaram wi sax day bëre. Simbamba Arafat du da koy defaral moo ëpp doole moo ko bëre Arafat du dërëm xale la day xaar. Zarko gan bi bu xeexee day bu xeex dañ koy dóor mu daan bu bëree day day ñàkk Arafat Zarko moo doole bokkuñ sax. day soob Arafat Zarko mag magu de. Ah. Zarko day daan incha allah Arfas moo la ko xam ne Zarko moo ko mën duma da daan wax fi nekk rek waaw. grave kase ah bu xeexee Zarko duma ko du bëree Zarko daan ko. bilaay wala ay mag ngeen. ay mag lañ loolu wax la rek waxu mbër la rek yooyu yëpp waxu mbër bu xeex moom booy kenn mësu ko yóbbu ardo. non bi moom day ñaax moom moom Zarko dina ko duma dina ko daan eh. waaw. dimanche waaw dimanche stade du yomb dimanche ñu fa incha allah. salaamaaleykum père. ah. salaamaaleykum maaleykum salaam. combat Zarko Arafat. waaw Zarko Arafat de moom. Zarko la ñu ñaanal mu am ndam. moom lañ bëgg moom mooy suñ mbëru grand yow. lañ bëgg mu am ndam bu soobee yàlla yàlla na ko yàlla may ndam. mais kuy bëre la. Arafat. Arafat nag xaw wax dëgg yàlla miinu ma ko bu baax. mooy mën a bëre. am mbooloo. am ginnaaw la ah. waaw tamit loolu lañ bëgg Zarko tamit du m mu ndaw. moroom mag la bëri naa ko ne. waaye xale moom dara moom affaire moom bëri moom renu njàmmi la rek. Ah, lépp lépp la bëri moo koy def. waaw loolu wax wax wax ju neex la rek loolu wax ju neex la mais bëri moom reenu ñàmbi la fu ne mën na faa demee waaw loolu moom moom laa gis man waaw sama ah, soobee yàlla Zarko da koy daan. waroo conseillé Zarko muy bëri lan lan la war a bëri dafa war a ñëw pour xeex wala ñëw pour bëri. bëri moom sama yaakaar bëri lu mu laaj rek nga koy indi bu laajee xeex ngay xeex xeex bi moom pour la buntu ngay wut rek nekkul da ngay topp xeex ba ba ñu daan la bëri moom da ngay ubbi xeex pour mën a am bunt waaw loolu mooy bëri boo gisee ñu ne bëri door loolu la pour nga am bunt yan saa yi nga ne nii ba mu yaakaar dangay xeex nga ñëw indi bëri daan yàpp jàpp daan loolu moo ci nekk jaajëf acca mbokk internet nga li leen doon tey fii ñoo ngi fii si garage bi garage mu tudd sax comment garage bi gaz bi Bignona ah fi mooy gaz Bignona ñoo ngi ñëwoon fii si gaz Bignona gaa yaakaar ne accident mi la ñuy wax fekk si làmb la wax donc mooy loolu nañ jox rendez-vous incha si combat Arafas Zarko xam ngeen gis ngeen combat Zarko yëpp lu ñu wax nee nañ mu toll nii woon Arafas day wax rek mais yàgg yàgg yàgg yàgg ndam mi fii la jëm rendez-vous dimanche incha allah rabi Arafat Zarko qui sera le vainqueur de cette journée incha allah dimanche sur arène nationale. moo ngi noonu yéen a dégg Zarko yi comme ni nga ko waxee gannaaw boo Ada Fass waxee Zarko moom tamit supporteram tamit gis ne ni ñu gisee affaire donc c' est normal ñoom ñëpp ne Zarko lay topp comme ni ko waa Ada Fass di waxee combat bi combat bu nar a neex lay doon rendez vous incha allah dimanche waa Grand Yoff pare nañ waa Médina pare nañ est ce que yéen tamit pare ngeen.